jërë ngeen jëf ku génn si célibataire na nga ko sante yàlla waaye am na marié yoo xam ne ay maribataire lañ maanaam am ay jabar ba pare di leen daw Lac de Guiers 2 takk na jabar loolee démb la ko lu mu ñëw ñëw du tee ñu daas ko Lac de Guiers 2 mboolem kuy connecté si internet bi rek jox na koy conseil ñu dem seeti conseil yi nga xam ne moom la ñu jox Lac de Guiers 2 Birane Diop nee na ko Lac de Guiers félicitation kaay ma expliqué la nag règlement combat bi combat gura laa lay tegal yaa ngi door a am combat combat bii nga am nag wuute naag yeneen combat yi ndax combat bi amul drapeau amul arbitre amul open press amul dagg ticket amul tuus amul takk gàllaaj amul xëppoo butéel combat huis clos la ndaw lu rëy te nocturne mu lay doon kenn du fa nekk yow ak madame donga fay nekk 22h ba 6h du matin waa lii neexul la de guerre baa xam nga ni foofu far la force dooley mbaam dooley bukki di nga daanu di nga daanu jël bu kenn dul werante jaru sax recours wala var yoonu CNG nekku si nee na ko bu la neexee combine sax am na foofu ndax yaaw ak sa adversaire da ngeen di déggoo si lépp léegi nag bonne chance jàppale ñu bu rikile bëréewuloo benn amateur bëréewuloo supporter bëriwuloo kenn kenn toppul sa ginnaaw kon nga daanu foofu wàññiwul dara te da ngay daanu sax kon nag Lac de daanul mu fin ñu jàlli si Malick Ndiaye ma ngay jooy de nee na ko ngir yàlla Lac de Guiers ngal la ngir yàlla lat ngir yàlla del attaqué bul défendre del attaqué avec vivacité Lac de Guiers ngir yàlla na ànd ak endurance Lac de fii moom combat sans verdict wuru faa mën am reménage ñu jàlli si Papi Dio nee na Lac de Guiers mii dong moo nar a rusloo ay bàjjanam barki yàlla nag dal la dëgër de macha allah bi moom baax na trop très belle la mariée félicitations ñu jàll ci Xaadim Njaay nee waa la dëgër de ak jabar ji moom nuroo nañu torop nu mu demee nii mais heure ménage champion di ras champion di waalo xanaa da ngaa ju ñu jàll ci Soxo Mbay Njaay nee na ko na nga fexe ba ñàkk xorom gi nekk si yow ak waye di gi nekk si yow na nga ko yemale si lamb ji sinon heure ménage après mu jeex foofu billaay boo ko nee mu jeex foofu day daw ñu jàll si Abdou Njaay nee na billaahi lune de miel bi gel bi bu góorgóorluwul la dëgër moom dina alièr géejawaay ba Pikine gis nga waa lijjantiwul ci àddunaam bay boo waa CNG teel ak moom sinon sëyu consigne la fiy def est-ce que duñ dem xooli Queen Biz ba xam moom lu muy joxe Queen Biz nee léegi mi ngi ci tànk star américaine est-ce que gars yi doo leen bàyyi rëy bi ñu dem songe star américaine yi nga xam ne duñu bàyyi lu ma sol lu nekk ñu dem sol ko mais tata Queen pardon da ngaa jum wala ñu dem seeti Khoudia Kane ba xam lu mu koy may Khoudia nee na ko yow Queen wax nga dëgg bu yàggee sax sa way yi la ñuy reproduire Queen saraxe rétroviseur R12 bu chocolat sinon dinañ nangu safar fais attention non sérieux Khoudia dina jay ginaar ba muy brek non jekke moom moom dafa jekkili kiwin bis nee ko yow la ñuy mi yóbbu la Amérique nga nekk foofu seen ndax ñu noppalu mais est xam nga ni garde bee la gën a jàpp poitrine bombé ak ange lu am solo la si xew taalibe dina raw sëriñam tey laa ko gëm sàcc sa lug ba pare daane kiwin demal nga bërongu ji non pare naa si kiwin xaar ñu dem seeti benn risque te tëj boos la boos la mi ngi noonu dafa risque ak déchiré nee na jabar lay wóor waaye xale yu jigéen a ne ko maa ngi nii may gu njëkk moom pousa guñ dong laa lay laaj merci d'avance ñu jàll si Fatou Kiné ko bis boo réglé sa problème bi nga am ak kañe yi nekk seen biir kër di lekk sa tubéy ji bu boobaa di nga am jabar ay waay ay waay ñu dem seeti Pigo nee na non mais alors quoi vous pensez que porter un jean déchiré c'est de quelqu'un un irresponsable y a des hommes a costume cravate qui gaspillent nos ressources qui maltraitent les femmes c'est ça été responsable j'imagine yi dëgg jox wóor na yàlla ay kon xol ba jeex na nee na man yéen Sénégal lay représenté ngeen jël suma alal maa la koo may maa la koo sarax maa la koo may maa la koo sarax man maa la koo may ay waay delloo leen ko yëfam ay kon ay kon waxal waxal waxal lu may def ah, pour yéen jox maa la gaw may maa la sarax mais xam nga nag yàlla moom naa la bàyyi ak